salaamaaleykum maa ngi di nuyu yéen ñëpp maa ngi tudd Bayna Gueye bokk mouvement Nitu Dëgg waaw ah, dinañ ñëwoon fii pour expliquer leen l'autre fois arrestation bi ñu subi ak violence yi ñu commissaire ma Serigne Faye teg laa ñuy ju 24 dañu àndoon man Abdou Karim Ousmane Sall Thierno usman Sall Thierno Sall ak Fallou Mbaye demoon fële assemblée nationale pour manifester suñu mécontentement par rapport ak loi bi waaj bëggoon dugal le lendemain ci noonu la police plateau fekk foofu interpellé ñu yóbbu ñu police plateau ñu toog benn quinzaine de minutes ñu génnee ñu yóbbu ñu ba autoroute bi sans pour autant nga xam ne yor nañ paasul yor nañ dara ñu bàyyi ñu foofu comme comme si on n'était pas des citoyens sénégalais quoi amuñu wàll ci dëkk bi sànni ñu si autoroute bi par nos moyens dañu defaat tout del ville kuñ ne suñu manifestation central interpellé waat ñu yóbbu ñu central ñu toog benn trentaine d minutes ñu jël ñu yóbbu ñu camp Abdou Diassi biñ fay wàcc la ñuy commissaire ma dem fekk ñu fa commencé ñu saaga ay ndey des injures publiques saaga ñu ñu wàccee ñu mënatuñu deux par deux ngar ki mënatu yaa ngi suñu loxo yi ba léegi dañoo lu amul seere baaxul mënatuñu ba max ñu ñu daanu ci suuf parce que bu ñu la mënatee yàq kii bu ñu leen duma da ngeen doon équilibre da ngeen di daanu ñu dóor bi ñun xam nañ ne Karim dafa feebar te mooy priorité moom mooy leader du ñu staan ñu koy teg yenn ñu ko doon jéem a bi mu ñu dóoree ba ba commencé pare ci laa laaj ci Karim nan nga tudd Karim laa ko waxu turam mu jël sooy ak même pas ak mat rek ak ay loxoom di ko dóor ñu pare mu déshabillé ñu ñun ñëpp duggoon ci benn selit bu ndaw def quatre gardes ñuy toog ba tuuréeroo par une de temps quatre gardes duñu si tiim ñu duñu surveiller lendemain mu libéré ku nekk ak bundum la jaarale ak yu mel noonu du ñu jox ay conseil nee pour ñu wut lu ñu def man dama boon wax dara Sénégalais yi waaw ñu ñaaxul lu ñu def ñëpp ñu ngi suñuy mbiru bopp activisme du du du métier du du àdduna c'est juste que patri suñu suñu patriotique la bëgg bi ñu bëgg suñu dëkk moo ñu ko jaral quoi parce que on est Sénégal dañu gëm ne Sénégal li koy baaxal du jóge fenn ñëw baaxal Sénégal ñu doomu réew mi ñooy baaxal suñu réew parce que bi àdduna nekkee àdduna ba léegi mosuñu gis benn dëkk bu ay étranger ñëw développé mosuñu ko gis dëkk yi développé yëpp doomu dëkk bi ñoo ko liggéey bu mu développé te ñun ñëpp ànd nañ ci benn kàddu on a des politiciens yi nga xam ne dañoo dañoo doy waar leer na bu ñu ko bàyyi Sénégal bu ñu ko wàccoon politicien Sénégal ci yées lay jëm ci yées la jëm te population bi tamit du ma ne ñëpp mais généralité population bi dañu am idéologie boobu noonu ne ku fi nguur sa bopp nga nguuru ñun dañ naan alhamdulilah yàlla def na si ñun namuñu nguur bugguñu nguur parce que lépp li nga xam ne ay mbiru àdduna la kiiwuñu quoi bugguñu ko bugguñu nekk milliardaire bugguñu am lu nit yi di tur lu mel noonu léegi bi yàlla defee si ñun maanute boobu noonu ñun dañ jàpp ne devoir la si ñun ñu mettre au service du de la population mooy que lan lépp li ñu gis ne dëgg la ñu ngi ciy xeex néew du doole ñu taxaw teewal leen ñi seen bar mu jëm kaw ñun ñu fi affilé wu ci ay mouvement yi ci mel ni ay ditu dëgg frappe yu mel noonu xeexal néew doole yi den seen droit ak seen ak seen ci tànk yooyu moo tax ñu ñu ñuy def activisme mais ñi jàpp ne amul lu ñu def ñu ngi nax seen bopp ñu ñëpp ñu ngi suñu business bopp di ko di ci nekk guddeeg bëccëg di gérer suñuy problème duñ ko ñaan kenn mais bu Sénégal bëggee man dama gëm ne bu Sénégal bëggee yépp kuy woote sénégalais bu diñ da war a ñàq loolu mu dugal ci activisme loolu tax may xeexal Sénégal te ñu ñëwaat par rapport ak torture yi ñu masi dañu fay teg lépp lu la réer rek da lay yokk doole moom na xam ne lim ñu def nii daf ñu gën a galvaniser te xeex bi ñuy xeex Sénégal tey la waalo a aay xaw ma ordre la xamul woon mais ko joxoon ordre pour mu pour mu maltraité na ne ko ñi mu doon maltraité tey bu fekkoon ne 100 pour cent la nax Sénégal tey 1000 pour cent la ñuy teewal Sénégal suñu tànk duñ ko delloo ginnaaw dañuy xeex ba am gain de cause même bu ko fekkee wul it suñu sët bu ñu julee seen maam rek taxawal na ils étaient dignes taxaw nañ xeexal Sénégal ñun loolu mooy suñu suñu suñu partition loolu lañu am pour teewal di wax tamit président Macky Sall troisième mandat mu ko xalaat te loi da ciy dellu ginnaaw parce que force restera à la peuple souverain loolu c'est sûr te loolu dañu koy exercer ba ba bu jaree laaj bakkan nañu ko ciy teg loi bi dafay koy dellu ginnaaw parce que fii fii amul terroriste duñu atte kenn ci terrorisme bi fii Sénégal ñun duñu ay terroriste xamuñu sax ñuy téye pistolet bay nekk terroriste xamuñu xamuñu terrorisme xamuñu ko ko fi dégg peut-être bu amee lu garaaw ay agression lay wax yu mel noonu mais nañ la atte teg leen daan yu ñu yelloo mais pas que muy di ni ci terroriste loolu benn la bu fekkee da ko bëgg a teg tam pour forcer troisième mandat day nax boppam day nax boppam mag bu jaaxaan nag di saw doo dool kenn sa bopp ngay tooyal troisième mandat du fi am waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Ousmane Sarr euh, donc di ñëw rek par rapport ak euh, li nga xamante ni yaakaar naa duñ fi waxaat loo xam ne répétition lay doon mais dañuy ñëw si fee directement euh, donc li xew te ñëpp gis ko te commissaire ma Serigne Faye def ko dafa doon loo xam ne acte terrorisme la parce que bu fekkee dañuy wax acte terrorisme mënut a passé nga jàpp nit koo xamante ne nii jàppoo ko si lu ñaaw fekkoo ko muy def lu bon fekkoo ko muy def dara yorul lu ju tere nga jàpp ko takk ay loxo monote ko di ko dóor lu mat 15 personnes wëruñu ku nekk yor sa liif mu sumi ñu ba ñu set ba ñu desee kilote même kilote yi nga xam ne moom lañ desee sax bi mu xoolee bu amee ceinture wala mu am ñoor day ñëw rek bif ko dagg ko pour yow bëggatul nga dese sa yaram dara loo xam ne daf lay protéger donc nag loolu bu amee commissaire ma Serigne fay nekk si dëkk bi def ko ba pare di wane ne moom euh, xaritu euh, ministère de l'intérieur la muy Antoine Diome ak préfet bu Dakar ñëw di ñu jaay ne sànq la jógee si bureau bureau ki nga xam ne mooy ministère de l'intérieur ak préfet bu Dakar di wax ne dina xool daka la ñuy def pour bàyyi ñu donc ñun dañu jàpp ne suñu police nationale bi mënatuñu wax suñu pëlis nationale mais dañu naan police yu mag sàll bi. parce que lan moo tax ñu naan police yu mag Sall mooy police nationale daf nekk koo xamante ni nii si wetu peuple bi lay nekk si wetu askan bi lay nekk. nekk di servir askan bi mais nag bu fekkee dañu dem bay servir ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi kon yaakaar naa ne amatuñ police nationale mais police de président de la république dañu am donc léegi nag comme ba ñu ñëw si feey mooy commissaire ma Serigne Faye parce que dem nañu sànq porter ko plainte ci kanamu procureur bu fekkee ne nag justice deful liggéeyam wala ñu def ko comme ni nga xam ne moom la dossier yi fi daan jaar daan def ba ñu naan boo jotee ak policier du mujj fenn mi ngi ndax boppam bu fekkee justice deful liggéeyam ay sénégalais leen ci Sénégal la ñu dëkk moom sénégalais la famille ñi ngi fi Sénégal te dinañu fayul suñu bopp nay leer naññi bu fekkee ne yoon deful liggéeyam mu ñu ñu dar koo jaarale comme dossier yi ñu fi daan jaarale bu njëkk na mu doon mel ñun dinañu fayul suñu bopp parce que ci dëkk bi la dëkk ñu dëkk ci dëkk bi te gënuñoo miin dëkk bi loolu na leer bu fekkee ne nag manifestation moo tax ñuy wax ay wàllu terrorisme ak jàpp nit ñi di leen torturer pour ragal loo leen pour ñi nga xamante ne nii Sénégal yi ci des nga xam ne pour ñu ragal loo leen ba nga xam ne dootuñ ñemeetee jug di xeex wala dootuñ ñemeetee jug di dem assemblée nationale wala dootuñ ñemeetee jug di dem palais de la république na xam ne mi ngi nax boppam te door bi nga xam ne dóor nañu ko ba gaañu daf ñu yokk fit yokkuñu doole mais amul dara loo xamante ni daf ñu koy wàññi du wax Sénégal yi ni leen bu fekkee manifestation bi amoon pale moo tax mu jàpp ñu wala bi amoon assemblée moo tax mu jàpp ne daf ñuy torturer pour ñu ragal na xam ne na pare te xam ne dinañu dem palais dinañu dem sax buntu kër Macky Sall manifester fa pour wax ko non troisième mandat te lii du ñu ko bàyyi tey mu jàll du ñu ko bàyyi ëllëg mu jàll te dinañ ci dem jusqu'à bu lu ñu am ñu jël pour muy leer nañu wasalaamaaleykum wa rahmatullah ah, salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di ziara euh, di ñëw ci li nga xam ne moo ñu fi dajale muy loo xam ne dafa ruslu ci Sénégal gàccaw mooy police bi nga xam ne moom lañ yaakaar ñu waggar ñu aar ñu ñoo dem ba ñuy lor mujj nekk ay nervi ndax ci biir bu ñu fàttalikoo ci biir dóor yi maanaam naa ne yéen xanaa ay nervi ngeen xanaa du ngeen homme de ñu naan ma bu ñu ñun mënoo ñoo jàngal suñu liggéey xam nga loolu dafa dafa ruslu ci police bi nga xam ne neen tàggat nañ ko ngir mu yor suñu kaaraange. Euh, beneen bi nga xam ne nag gën na ma metti mooy Serigne fay mi nga xam ne dafa bokk ci kilifa yu mag yi ci police kilifa yu mag yi ci la bokk di def xeetu matadi googu nga xam ne yooyu wax dëgg yàllam nit ku nite sax du yeewu nit di ko dóor mu leen la kii boo ko bàyyi woon yaa moom yaa moom nga bàyyi ko du demee nii nga monati ko di ko dóor xeetu suufi yooyu kilifa war na ko moytu sa lan moo tax mu def ko ngir lan ngir Macky Sall gërëm ko wala ay kilifaam ay Antoine Diome yooyu gërëm ko ban njariñ la ko amal dafa nekkoon koo xam ne euh, manifestation yiy jàll dafa doon wane ndeysaan euh, ak mat dadaa ñëw bu ñu manifester muy waxtaan ak ñun di da ngay da ngay mujj naw police wallahi lazim buy waxtaan ak yow da mujj naw police mais bi mu defee lii ñëw dóor ñu saaga dañoo dugg mu tàmbalee saaga dóor sama waa ji Abdou Karim xam ne ndeysaan ni ko yàlla bindee ak xiibon la nga ñëw dóor ko ci faar faar xam ne manoon dafa jaare faatu tey ñoom noon la def baray nit noonu la def baray nit naan dafa xaru man li ma gis keroog ëllëg kuñ ne dafa xaru police du ma ko gëm ndax damay xam nit ñi mën nañoo rey nit ba noppi ne dafa xaru du dara ci ñoom am na benn waay boo xam ne gan la sol gis nga bi mu dóoree Ousmane Sarr ci bët da koo xool natt ko ba kii mu ko tépp ci bët wallaay lancim lu yéeme ba Thierno mi ngi koy kii naan ko man dama jàppoon ne Ousmane du xool loolu nit di ko def waxuma nga yam ci ba noppi nekk om de tenue war a aar sa askan waaye lépp li tax ñu def ko rek mooy lan ragalloo ñu mooy teg ñu pression ba nga xam ne buñ ci génnee suñuy mbokk di ñu wax naan nangam moytu leen police nangam nangam mais loolu mënuñu dellu ginnaaw ñun dañoo tayle suñu bakkan ngir suñu réew ku tayle bakkanam ngir réewam nag ay kasoog ay dóor ak yooyu mënu ko dellu gi naaw kon ñoom nañ xam ne Macky Sall euh, da nga jëloon ay nerf yi ñuy dóore doyatul la nga dem jël leen ci police lu ëpp junni euh, nit ak ñetti téeméer ñoo xam ne ay nerf yi tekkiwuñ dara dañoo entraîné ba am seen doole ñu ngi leen yóbbu police ngir lan. bu manifestation amee wala yenn yi askan bi jóg ñu dóor askan bi tey dama gëm ne ma Serigne Faye foofu la waroon a ñëw xeex loolu la waroon a xeex comme ni ko yenn kilifa ci police bi defee mais wëlbatiku di dóor ñoo xam ne yow amuñu amuñu yow benn problème dañuy xeex ngir seen réew loolu dafa nekk ak matadi goo xam ne dafa wàcc ba ci suuf fi ne nii jëratul dara dara dara dara moom ma Serigne Faye jëratul dara sa loolu lépp li ko waral mooy wut pouvoir beneen bi may wax mooy Macky Sall na bàyyi xel ne bu dee ñun activistes yi nga xam dañuy jóg ngir xeexal Sénégal léegi tëj doyatu ko léegi dafay ñëw ci dóor toroxal dóor moom lu ne mën na si juddoo dóor mooy indi rey bis bu fi reyee benn activiste na xam ne moom pare na loolu moom dañ koy wax mu leer benn activiste bu bu ko bu ko reyee fii Sénégal na xam ne moom Macky Sall du ci génn. kon nat bàyyi ba bu baax li mu def nii ndax bu ko bàyyiwul bis dana ñëw ñu dóor fi nit mu dee ndax keroog li ma gis mën nañ see rey nit dóor yu métti euh, di wax ne xeex bi dañ koy wóyal duñ décoration wu mukk sa duñ dellu ginnaaw ku mel ni Cheikh bàmba xaadi mu rasul xeexal réewam moo taxoon ñu not ko tëj ko di ko toroxal juróom-ñaari at ak lu teg mu ne am na loo xam ne kersa sax mayu ma nettali ko ndax ci mettit waaye li taxoon mu def ko mooy sababu gaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi nee na li sabab sama tukki tubaab yi jàpp ma di ma toroxal ak di ma di ma tëj di ma fitnaal mooy ma dimbale sama sama nit sama askan ñun kooku mooy suñu roykaay moo tax lu ngeen ñu mën a def gëm leen dañuy gën a yokk jom dañuy gën a yokk fit mais du ñu delloo ginnaaw mukk asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw maa ngi nuy gaa yi ne fii yëpp di nuyu sénégalais yëpp ah waaw fu mu nekk nii daanaka sama gars yi wax nañ lépp waaw duma def répétition quoi dañ may ñëwaat rek wax rek des na quoi parce que mënuñu expliquer dañ ñu ngi ñu mënote quoi parce que ñu ñu fekk euh, ni fee demee laaj ñu ngi fekk buntu assemblée jàpp ñu yóbbuñu plateau yóbbuñu ba côté Colobane bàyyi ñu foofu encore ñu delluwaat ñu ñu central ba ñu yóbbu central ba ñu yóbbu maa ngi dégg ci dictaphone bi ñu naan il faut les corriger si la ñuy jël yóbbuñu ko Abdou Diassé dañoo dugg si rek kooku noonu ma Serigne Faye boobu noonu mel nii ku ñu def ma dafa màndi parce xam naa ko zone que ne bien dañuy day ci terrain bi comme ni ko Fallou waxee des bu nekkee ci ful bi nii da il communique bien quoi da naan kii vraiment man dañu dañu di wax man naa ma kaaw di làkkante ak man dafa dugg def nii mu commencé mbéj dóor ba muy doxee yow sama loxo bi nii essai mënu dafa ñu dafa ñu da doon dóor pour nit ñi pour humilier nit mais mu ngi dóor ñu wax moom après ci la prise sama loxo pour damm ko ma baa ko ma daa koy bàyyi loxo bi yàlla def na mujjul damm quoi si la ñu tiim ñu ñu mënote tiim ñu di dóor ñëpp ñu ngi protéger Abdou Karim parce que ba muy dóor Abdou Karim maa ko naan kii dafa feebar dafa am ay ay mais ci la ko tiim dóor ko ci faar bi nga duggoon ñu ci ba avant dugg ci biir gaa ñu tiim futtuñu chaîne bi comme la ko na xam naa lépp na pour intimider lañ mais war a comme ni ko sama gars yi waxee rek fii kuy ragal kuy kuy daw nekkul fii nii lii def ñuy gën a ñemeloo incha allah rabbi léegi may wax Sénégalais nag ba ci yéen journalistes yi yéen laa njëkkee yéen yéen vous êtes

donc may wax jeunesse sénégalaise bi yëpp nañ bàyyi daal ay politiciens jaram ko lii di combat politicien askan bi ñu nar a noot ñu ñëw jug du kenn moo ñu koy dagal Macky Sall mi France la fi nekkal donc daal sa daanaka sama gars waxoon nañ lépp loolu wax sama gars yi na ngeen pré jeunes nañ woo leen ngeen ñëw ci combat citoyen bii nii incha allah rabbi maa ngi